jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ci wasaare ñu ngi leen di nuyu cant ak ngërëm na leen comme niñ koy defee saa su nekk rek tey ñu dalalaat benn kilifa benn ñaankatu yàlla boo xam ne ràññeeku na bu baax ñu fas yéene seq ak moom waxtaan bu yaatoo yaatoo yaatu ñu gën koo xam ci Dieng Niass jarbaatu sëriñ si sëriñ bi maa ngi lay nuyu. di la delloo nuyoo bi waaye di nuyu mboolem julliti adduna bi rawatina yu Sénégal yi yu góor yu jigéen ñi. di leen baalu àq ci koor gi nag te di leen baal àq di ñaan yàlla liñ ci jàmm yàlla yàlla nanguñu ko yàlla bu nekk suñu mujjut koor ci barki yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen boole baat bi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi doon wax euh, say yëngu-yëngu li ngay li ngay def ci ñaan yàlla lan nga ñu mën a expliquer. muy ñaan yàlla loo xam ne macha allah. am nañ ci lu ñu si yàlla defal te nit ñi tamit nangul nañ ko ndax ñu ñu ngi siy jëflante fii bitim réew réew mi ba ci bitim réew ñëpp xam nañ ñu daanaka duñ njomb di def émission yu mel nii sax waaye àdduna toll noonu ndax àdduna fu mu toll rek danga fay jéem a toll la sa bopp xañ na lii moo xew lii moo xew moo tax ñu dugg ci waaw bu ko defee ñaan yàlla dafa bëri ñaan yàlla dafa bëri waaye ñun sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamina ñu ngi bokk ci famille Léona Niassène suñ maam di maam alaaj alaaji Babacar Niass di doom ci xalifa xalifatu aji Mouhamad Niass di mag ci Seydi Lamine Niass ak Ahmed xalifa ñes mi ngeen dégg kon ñun buñ ne xam-xam Léona Niassène desuñ ci ginnaaw kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci lool soo laajee wàllu ñaan nag li ñuy ñaan dañuy ñaan yàlla bu baax ci mbooleem jafe-jafe yi nag mbooleem jafe-jafe àdduna yu nit am rek danañ ci ñaan yàlla moo xam lu neex la moo xam lu naqari la dañ koy ñaan yàlla ba yàlla sottalu ñu ñun nag yàlla dénk nañu tur woo xam ne macha allah duñ ci ndamu duñ ci ndamu de ndax yàlla moo ñu ko jox xamalut ko ñëpp nag ñu ngi ñu ngi sant yàlla ci loolu nag ñu ngi fi ñuy ñaanee yàlla mooy tur woo xam ne yàlla bépp tur bu nit mën a yor rek bu dul tur bii nii tur bu tur bii ëppal na la doole ñeenti junne yoon wallaay wal quraani azim bépp tur yàlla bu nit mën a mën a yor ndem du tur bii rek tur bii moo la ëpp doole ñeenti junne yoon tur bii képp koo xam loo ci bëgg a def mën nga ko cee def bu la neexee mën nga cee euh, noo koy liggéeyee santé pàcc noo koy liggéeyee rek ba ci atta ba ci yéeg ci kaw jaww ji di daaw sax boo ko xamee ak ni koy liggéeyee tur bii mën na lu ëpp loolu yàlla gannaaw loolu tur bi yàlla xaaj na ko ñeenti junnee xaaj benn xaaj bi mu euh, mu xamal ko malaayka yi ku dul malaayka rek xamuloo xaaj boobu benn junne bi beneen xaaj bi mu xamal ko yonent bi ku dul yonent bi xamoo benn junne boobu beneen xaaj bi mu daal di koy xamal yonent yi moo tax yonent bi foor na de ndax moom am na benn junneem ba pare jàllat bi ku bokk ci beneen xaaj bi beneen xaaj bi yàlla séddale ko ci alxuraan muy ñeenti téere yi tawreet linjiil furxaan ak zabuur ñun nag tur boobu la ñu yàlla jagleel lépp luñ ci bëgg a def rek dañ ko ciy def bari ci xataa fay wax ak lépp lu mu mënti doon rek ngay xëcc loo mënta jot wala ngay nga bëgg loo mënta am wala ngay lijjanti lu mënta sotti yooyu yëpp ñun ci lii la ñuy jaar ñaan ci yàlla incha allah yàlla te buñ buñ fëggee bunt bi ndem yàlla xamal na ni ñu koy fëggee buñ ko fëggee rek yàlla dina ubbi bunt bi incha mook tur yooyu la bokk xam ne bu dul waxuma jafe de bépp tur boo mënti yor bu dul tur bii tur boo mënti yor ak koo mënti doon laa la wax de nii de tur boo mënti yor tur bii ëpp na sa tur doole ñeenti junne yoon loolu amul sikki sàkka tur bi benn tur ëpp ko doole boo mënta yor nag ndem yoroo ko tur boo mënta yor rek tur bi ëpp na ko ñeenti junne yoon te bi doole ji dafa dafa jë parce que liggéey du benn liggéey liggéey bu nekk loo soxla rek déggoo li ma la wax dama ne la atta ba si jaww ji sax am na noo koy liggéey man nga di dem di ñëw wallahi wal quraan azim boo kii boo bëggoon léegi léegi léegi ma génne la fi xaalis bu weex fur kon mun li ñuy def jublu si ñaan yàlla rek moo ñu moo ñu ci soxal waaye pour jaamu ci yàlla. xaalis génn. wallahi wal quraan azim bu la neexoon tur bi fi mu ne nii nga liggéey ko. fii fees dell ak dollar yaa xam dollar la wala euro nga bëgg wallahi mu fees dell fii tur bi li mën li mën ma ne la maanaam bu dee àdduna rek la ñor kii bu dee far président la wala mu wala wala far ki nga xam ne yaa bëgg ndombal tànk boo bëgg mu kawe bu kawe boo bëgg a jot buñ la si ñaanalee yàlla si nu waree danga si jot bu neexee yàlla yoon kii du caaxaan moo tax duñ ko génnee dañ lay junj ne la lii la rek waaye duñ la wax ne la tur bii la wala tur bee. Ah, waaye <laughs> wala toj réew mi sax waaye dañ siy jaamu yàlla bu neexee yàlla yonent bi ndax bëgg nañ see jëflante bëgg nañ see jëflante ak nit ñi presque adduna bi léegi dafa jaxasoo te da ngay gis ñu bëri naan yor naa lii yor naa lele waaye koo jëflante wutal mënoo xam mënoo xam li mu yor ñun nag lii sant yàlla la ndax su ma yeboo maanaam bu dafa am at yooyu toll yàlla xamaloo ko at boo ko passé doo doo ko xam boo fa tolliwul doo ko xam waaye boo fa tollee ba xam ko ba war koo xam rek danga ko xam waaw kon ñu ngi sant yàlla si loolu nag du bàkku du bàkku ñu ngi sant yàlla. waaw ci ci ci xanaa tur wi moom moom ngay liggéeyee lu ci mel ni euh, tey koo xamante ne nii bëgg na di xëccoo dara. Mhm. mooy xëccoo place wala muy élève buy jàng. wala mhm. mhm. tur bi nga koy liggéeyee. li ma la wax. tur bi lépp àddunaan ci biir yàlla xamal nañu lépp lu ci nekk léppoon ci bu ndem yow da nga bëgg a soxla da soxla place walla wala wala ngay jàng di examen wala wala yow yaa xam loo bëgg wala wala comme euh, nga ngay jënd kër yéen ñaar ngeen koy yéen ñaar ngeen euh, ngeen di xëccoo wala wala kii fay lii kii fay dem yow ñaanlu nga si tur bii nii même yow boo fayee sax lu lu koo xam ne kële mu la ëppale wallahi nem ñaanlu ko si tur bii yow da nga jot kii lu nekk la mën lépp lépp ci àdduna même fay wax wax ju bëri nii comme comme fi mu ne nii su ma su ma su mën a wax nii fi fi réew mi toll ci wax buñ bëggoon wax ji fay wallahi wal quran azim tur bii nii rek nga liggéey ko normal jàmm rek mooy xew ci réew mi jàmm rek mooy xew ci réew mi li coow li bëri coowal Adji Sarr ak coowal Ousmane Sonko bu ñu ñëwoon ci yow nga jëfandikoo tur bi coow li jeex. wallaahi wal xuraan man xa maanaam waxuma la dara ma xam nga jàng dafa metti soo gisee ñun nitu daara yi lu bëri duñ ko faral di def ci nii naka noonu noonu rek parce que euh, jàng dafa metti il faut gis nga tur wi nii ma lay wax nii tur nii lu coow li bëri bëri bëri bëri suñ ñaanee yàlla si ni ñu war a ñaanee yàlla jaaree ko ci turwi bi lépp si jaam ak salaam lay mujj incha allahu taala. léegi mhm. euh, sëñ bi. beneen mhm. mooy euh, fi réew mhm. ñoo xamante ne nii tey lépp luñ mën di yëngu rek. dañuy am tiitaange ci seen bopp. li koy waral nag mooy ñoo xam ne dañuy jóg di jëf ci seen der. di leen liggéey. ak leen yàqal xeet googu noonu nit ki ci bëgg a mucc. bu gisante yow ana naka lay def. alhamdulilahi rabil alamina loolu nit bu nekk dafa war a am kaaraange d'abord laata ngay dugg ci beneen affaire mais nit ñi léegi dañuy réeree dañuy jékki-jékki rek utali xalal jékki-jékki rek nekk ci yenn situation yoo xam ne euh, maanaam yow doo sóoraale sa bopp doo toppatoo sa bopp nit ki da nga war a am kaaraange d'abord bala ngaa def dara bala ngaa def dara da nga war a am kaaraange mais nit ñi léegi defatuñ loolu da ngay jug rek commencé dem uti alal commencé am alal soo amee alal ba ci kanam gis na yow alal ji muy commencé yàqu te xamoo lu ko waral te fekk loolu lépp ñàkk ñàkk ñàkk aar sa bopp moo koy waral parce que nit ñi te boo amee ñi lay bëgg am ñoo xam ne ñu ngi lay bañ am na ñoo xam ne suñ sañoon nga am am na ñoo xam ne suñ sañoon suñ sañoon doo am kon da nga war a aar sa bopp d'abord aar sa bopp mooy lan ñun dañuy am nañ càngat gu ñuy def càngat gu ñuy def goo xam ne buñ ko defee ba boole ko li muy ànd ak yëpp ñeent fukk dina ànd ak euh, fukki mbir ak ñeent yoo xamante ni ci biir cangat gi lay bokk cangat googu noonu bu ñu la ko sangee day ànd ak balu tàng si balu tàng si xam nga ne balu tàng si boo ko dóoree ci miir bi day dellu siwaat hmm. si ko dóor ci lay dellu siwaat ko defee ñun buñ buñ liggéey li ñu war a liggéey ba pare de euh, ba sangee la ko wallaahi ku la dóor ku la defati liggéey wala lu ñaaw bu ko defee tamit si kawam lay dellusi loolu moom amul sikki saaka loolu moom lu wér la duñ si werante sax dama ne la sëñ bi balu tàng si boo ko xam nga balu tàng si boo ko dóoree si miir si yow lay del si waat mm-hmm. ñun nag sangat gi ñu lay aaree buñ ko liggéeyee ba pare mm-hmm. ba jox la ko boo ko sangoo boo buñ koy liggéey balu tàng si da ciy bokkaale boo ko sangoo ku la defati lu ñaaw ci ci ci kawam lay del si te liggéey sëñ bi baaxul ci nit mm-hmm. liggéey dafa bon ci nit liggéey ni muy def ci nit mari dee taali ku xamul liggéey ku xam liggéey buñ nekkee liggéeyoo ko dal sax est-ce que da nga da nga nangu yow mi xam liggéey da nga nangu ne liggéey ko dal liggéey baaxul sëñ bi yéen ñu si yàlla mos a sàrdument yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci presse bi dafa ngeen a seen bopp parce que ku nekk ku nekk leen gis ni ñu nekk ngeen ni dajet fi mu ne nii liggéey bon na bon koo xam ne am na xob boo xamante nii moo tax dara jaru xeeb xam-xam soriwul xam-xam dafa làqu mais soriwul am na xob boo xamante ni tey jii boo ko xamoon yéen na yàlla namu lu baax rek. waaye nga nekk ci palaas nga ne moo tax nit ku nit ki war naa aaru fu ne nga nekk ci place nit bëgg la faa jëlee xob boobu tey bu ko fàqee du ci bind dara xob rek lay doon da koy fàq rek bënn ko xool la ko nii comme dàll yéene lay so yéene soxlaan ne yal na fi jógee bu xëyee du la fa gis wallaahi wal quraani azim moo tax nit dafa war a aaru ci côté bu ne nit ñi nañuy aaru. Hmm. ci ki nga xamante ni liggéeyaguñu ko mais ki nga xam ne dañ ko liggéey ba pare ba jàpp ko kooku nooy jëflanteeg moom. alhamdulilah rabil aalamiina kooku sax si lañ gën a gaaw. Hmm? waaw tëj liggéey. waaw moom maanaam loolu moom kéemaanu yàlla la. ci ñun si toj liggéey. ndem xam nañ ne liggéey bi lañ ci yow bu ñëwee ba xool ko xam ne liggéey benn seet damay wax ne man ñun seet sax fi mu ay seet ak yii nii sax ñun toll nañ foo xam ne buñ jàkkaarloo yow rek xam li nekk ci yow buñ jàkkaarloo yow amatul ay seet jël fii di kii yooyu noonu yooyu sax day dem ba am na fu may toll day dem ba dootu yooyu moom dootuma ko tal. su su seet yi damay damay seet lépp damay ramlu seet ci suuf damay listixaar bu la neexee nga toog nii bu dee yow sama diggante yow damay jëflante yow suñ diggante war a nekk loo xam ne lu la war a jëriñ la am naa seet boo xam ne dama koy def ci bant jox la nga yéene sa soxla taxawal ko ci ndox mi bu bant bi taxawee ci ndox mi bu bu temps sax mën naa la ko defal fii nga xool ko bu bant bi taxawee ci ndox mi nga xam ne suñ mbir suñ mbir jéego méngoon bu taxawut nga dem seeti ku la ñaanal man mënuma laa ñaanal hmm. waaw bu xatutoon temps bi xatutoon léeg mu indi ko fii defal la ko nga xool man nekkuma di sikki saaka ci lu may def dama wër ba dajal taseeg ay mag ñu jox ma ak li ma yàlla jox ma ma ma booleeg moom waaw. mais xeetu seet yëpp dama koy def waaye am na fu ngay toll nag moom dootuma faale yooyu da ñëw sa ndem dëgg nga sa tànk sama biir nekk dugg bu ma xoolee sa cat wewi danaa xool lu la lu la tax a jóg waaw loolu moom liggéey bu mu mënti yor bu mënti yor ndem jox naa la ko. même bu dee dañ laa takk xala sax bu ma la joxee li ma lay jox nga sangoo ko jour boobu mu deñ waaw kay ci wàllu takk xala bi ci la duggee ci néegu sëy mhm. bari sëñ bi ñoo xamante nii ñu ngi bëgg a takk mu jafe leen te lan tax mu jafe leen mooy ñàkk déggoo ci ay wayjur mhm. ñaar ñi danañ bëgg wayjur ku wayjur bi bañ mhm. xeet yooyu nga xam ne day day am problème naka la sëriñ bi di def ba mën a yombal loolu ba sëy am alhamdulilahi alamin ba léegi man laal tey dafa mel ni émission bi dafa alaada bi ndax li may laaj nii dafa mel ni daal day dam li may waaj a laaj rek mooy ñëw ci man li ma lay waaj a tontu daal dafa mel ni moom nga may laaj chaque jour waaw li ma la waaj a tontu dafa mel ni sa xel looloo ciy ñëw dafa mel ni daal sa xel day di seeg sama xel bu defee loolu lu koy waral mooy dafa am loo xamante ni xasee ba dugg maanaam nit ki léegi lu xew ci jamono ji mooy buñ la buñ la yaakaarewul dara duñ la may soxna dafay am te nit ki pourtant mën nga koy ñàkk yaakaaree dara mu dem ba ba ci kanam ay buntam ubbeeku waaye léegi kooku noonu ndax yow xamoon ndax xamoon ndax moom euh, su takku soxna si dana ubbeekum du ubbeeku kon loolu li koy waral mooy xeebeel day waral te va parents yi di bañ mais buñ ne borom xaalis la ñaareel rek dañ naa waa ne dëgg mën naa may million wala mën naa may deux millions mu dégg te sëy loolu taxu ko jug sëy yàlla moo koy takkee ca aras ñun nag ñëpp lañ fi nekkal moo xam yaa ngi amoo moo xam am nga waaye ndem bëgg ngaa sëy ci far si yàlla ak sunna su Muhammad nga am koo bëgg bëgguñu jàppale la ci ñaanal la ci yàlla liñ lay defal buñ la ko ndem du caaxaan moo la tax a jug buñ la ko defalee incha allahu taala kenn mënul tere ba du nekk sa soxna. waaye bu amee koo xamante ni dafa ñëw taxaw temm rek liggéey lam ci liggéey ne sëy bi du am. laa bu déggoo li ma la wax. loolu kay amatul ndem yow bëgg ko dem jëfal nañ li nga jëfoo ba nga jëfoo ko liñ la defal ñu defal la ko ba nga kii ba ba mu kii sëy boobu kenn mënut tere ba du am kenn mëntu tere ba du am xam nga pakk digg yoon pakk bu nekk ci digg yoon yoon am ñu teg ci xeer ñu teg xeer ci kaw tali bi oto bu ñëwee da koy moytu wala boo ci yéegee oto bi dana xaw a kërëj kërëj yi kii xaw a xaw a wu tuuti kon ñun li ñuy wax luñ xam la dañ ne li bu dee ndem bëgg nga ko te sëy rek la tax a jug si faral si yàlla ak suna si Muhammad li ñu lay liggéeyal bu ñu la ko liggéeyal ba pare kenn mënatu ci dara lu dul sëy rek. bu sëy bi amee it dana ne ah comme que seex bi liggéey na ba sëy bi am. Hmm. doom moom du fi juddoo. doom du fi juddoo. Hmm. Hmm. te yu ci bëri rek ay jëf la yoo xam a leen koy def. waaye ñaareel danay am jëf danay am jëf. waaye ñaareel tamit rab dana koy def waaw ñaareel rab dana koy def wala daanu crise yi ngay gis yooyu yëpp ci xeetu rab la crise parce que nit dana ëmb jékki-jékki ëmb bi yàqu mu fekk daanu crise yi muy def xam nga ëmba ak yi àndul loolu lépp dana koy def waaye bu nekkee tamit dañ ko liggéey déggoo li bu xasee bu ndem xas na ba ñaanale yàlla maanaam mucc ngeen si xeet yooyu yëpp yéen waaw nem xas nañ ba li lay jox nga jox ko ba nga jëfoo ko xeet yooyu yëpp mucc ngeen ci kenn mëntu leen def dara waaw. mais ki nga xam ne nii moom euh, sëyam jaar na ci yoon mu sëy ci farata si yàlla ak sunnas Muhammad. Hmm. toog lu yàlla mënul am doom mu nekk ay jafe-jafe mu ne daan daal damaa gis sëñ bi bëggoon koo diis sama soxla kooku bu yegsee ci yow. alhamdulilah rabbil alamin déggoo la wax yow suñ suñ suñ suñ kii day tasee wallaahi du question sax. am na nooy du waxee ñu ne kii dafa day day bàkk wala dara te du loolu ñu ngi sant yàlla ci loolu pour mbiru am doom kese kese kese kese juróom-ñaari fan si lañ la koy lig si lañ la koy liggéeyal nga jëriñoo ko bisu dimanche dañ koy commencé saa boo jullee fajar ba pare ñu ne la jëlal da nangam nga def ko nàngam ba juróom-ñaari fan yi mat incha allahu taala ndem mbiru doom rek moo la ñor. kooku moom jeex hmm? maa la wax lii dem mbiru doom rek la nam da ngaa télé am doom ñu jox la liñ lay jox nga commencé ko bisu dimanche juróom-ñaari fan saa boo jullee fajar ba noppi ñu jox la li nga war a def nga def ko loolu moom jeex kon euh, ci wàllu am doom. Mm-hmm. ji na ay agression. Mm-hmm. kenn mënut sàmm sa alal. Mm-hmm. foo toll ñu agressé la jam la ay paaka dóor jaasi nangu li nga yor dem. Mm-hmm. te ñu ci bëri seen deret seen seen der bu dëgërul. Mm-hmm. moo waral lu ñu mm-hmm. bu dëgërut. lan la ci sëñ mën. der bu dëgërut loolu sëriñ bi lim ci man bëri na moo xam euh, da koy takk moo xam lu ñuy naan la. goo xam ne ku la jëmal paaka dootu ko nettali moom. nga ñaari tul dañ koy liggéey ñun. tul goo xam ne mën nga ko lekk mu nekk si jëmm. ak tul goo xam ne danga koy takk saa bu la neexee nga tekki ko waaye tul lu baax la ci doomu aadama ndax jamono ji fi mu ne dafa wóorut fi mu ne nii jamono ji dafa yàqu téléphone sax wala téeméer sax mën nañ la cee rey moo tax danga nga war a aar sa bopp moo tax tul baax na waaye nag bi ñuy takk moo gën a baax parce que boo génnee booy dem foo xamante nii Euh, kii wut euh, wóoluwoo ko nga takk boo ñëwee tekki waaw dafa da waaye bale day xaw a des sa jëmu ji dafa dafa dafa dafa am leneen mën na am na yet baax na trop voilà daam ay jeexital nag waaye bi ñu si bëri ñu koy liggéeylu si ñun bi nga xam ne moom la takk lañ koy la la ñuy liggéeyee lañ koy lañ koy liggéeyal waaw tul moom baax na dañ koy liggéey tul gu wér sax gu am gën sikki sàkk kenn du jàmbam dugg même boo meree sax toog ci seize bu dee weñ la boo kii nii bi daal lem amul sikki sàkk tul góog tul tul kay kemtaan la sëñ bi. mais euh, ah, ñun jàppale jaamu yàlla yi rek am na mbir yoo xam ne moom mënta yomb su mel ni ñaan yàlla googu ma doon wax mënta yomb parce que ñaan yàlla lim taxoo dafa bëri te boo ko defut parce que am na ñaan ñun liñ yor boo ñaan yàlla fan yooyu ngay ñaan yàlla doo lekk luy luy luy luy dund lu mel ni ay ganaar ay jën loo xam ne am na ruu lépp lu am ruu rek yow fan yooyu doo ko laal yu mel ni mbiskit ngay dundooy yu mel noonu ngay dundee doo doo dugg lu sa yoon nekkut dangay ngay sell ba pare da ngay jàpp foo da sell foo toll sa soxna danga koy peeg bàyyi ko fan yooyu nga nga ngay liggéey pour yàlla nangul la moo tax ma ne tur woowu du caaxaan lépp lu nit di bëgg rek ci wàllu aajo rek man loolu mën naa cee def lu ne lu ne mën naa ko cee def ñun xaalis taxuñoo jug am na am nañ ko ba pare mais lu ñu tax a jug mooy dimbale jaamu yàlla yi parce que lii buñ ko xamee nëbbu ko dee yàlla danañu ko laaj waaw loolu la bañ nag waaye jamono ji moo yàqu yi sax nekkutoon suñuy yëf waaye jamono fa toll jamono bu fa tollee ni jamono doxee ngay doxee waaw Euh, ba léegi ci wàllu euh, sàcc yeeg yooyu. Hmm. dëkk bi dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni ñu ci bëri dañuy yar jur. mais hmm. eh, ci biir yar jur yi ñii dañ leen di sàccal ñii di yàqule ñii mënuñoo def du avancé. Hmm. ndax yu xeet yooyu rek tey koo xamante ni éleveur nga. di yëngu ci yar ay jur wala di denc dara. doo mën ci moom. waaw alhamdulilah la ñuy waxaat rek éleveurs yi moom macha allah. Euh, Euh, am na ñu may jëflanteet ñoo xam ne am na secret bi ñuy wax gaynir ki se gaynir ki waaw koo pëlier ko gën a xam lu yokk jur la boo amoon xar mu jigéen tey ba bind ko ba teg ko ci jëlal rek nga aw denc wala nga nga nga suul ko seen daaj bi ren di déwén wala fii ak ñaari at nga xool sa xar dana yokk ba nga tiit hmm? waaw loolu lu wér la alxuraan indi na lépp alquran am na lépp ba ba tey wàllu kaaraange pour yàqu-yàqu yooyu jamono ji dafa xat ni ma la waxee ngay yar sa jur ñëw fekk ko fa jël ko yooyu noonu dañuy liggéey loo xam ne boo ko defee ci bërëb ba maanaam lépp kuy yàq rek doo doo doo yow yow moom foofu doo doo fa doo teg bët dañ laaral sa place ba kenn du du fa mën a yàq si wàllu sàcc ci wàllu leneen incha allahu taala waaw loolu moom kon daal bu gisee ak yow ci côté boobu. aajoom dana aajoom dana faju ci loolu mais sëriñ bi li ngi fi lim yépp. Hmm. li tax sëriñ yu bëri ñu leen di daw. Hmm. mooy dañ lay limal yu bëri ne la mën nañ koo def. Hmm. te amul benn preuve. benn assurance boo xasee jëflanteeg ñoom yaa ciy topp di daw mais doo gis dara. lan moo la wutaleeg xam nga ragal yàlla bu bu jiitoo si yow lu bëri danga koy jombale sa bopp wala ñu am kuñ lay xoolee wala ñu am fuñ la teg lu bëri danga koy jombale sa bopp ñun dafa am fuñ bokk ba pare am na yu bëri dañ koy rus a def muy alaaj Babacar Ñas mooy suñ maam xalifatu Aji Muhammad di baayam Aji Ablaay Ñas di baayam man rus naa taxaw lu ma mënut ne mën naa ko xam-xam jaraluma lool wala xalal jaraluma lool xaalis duma ko def amoo maqaamaay ma ne la mën naa lii te mënuma aw ma amoo amoo ma maqaamaam man lu ma mënul rek mënu ma ko. am na heure yoo xam ne daanaka am na ñu yor téléphone yi nag boo waxee boo boo wootee boo fa jotee boo leen jotee mën leen a wax bon mën nga leen a wax soxlay yi waaye pour le moment instant bii nii nag nekkuñ ci xalwa yooyu xalwa yooyu day xaw a jël temps mais jamono ji ñu tol nii nekkuñ ci yooyu noonu am na ay période am nag. waaye am nañ numéro boo xam ne saa boo wootee rek da si jot bu dee soxla bu jamp-jamp nga yor yooyu li li ci mel ni ay émorité ay kii yeeg euh, yooyu yëpp dañ xeet yooyu yëpp dañ ko waa yu su bëri neexutu def voilà yu su bëri neexutu lim ci euh, émission parce que day xat day gàtt waaye boo ñu wootee wooyee rek wax ñu sa soxla incha allah taala luñ ci mën rek dañ ko ci def ñun boo jëflanteek ñun rek danga xam ne jëflante nga ak koo xam ne maanaam ñun am na yoo xam ne jaraluñu ko daal ay nit woola doo loolu boo ko li ngay lekk fan nga koy fan koy lekkee parce que li nga li nit bu la yëkkatee àllam jox la ko daf koo liggéey léegi yow boo ko lekkee ak sa njaboot te defaloo ko li bëgg wala neex li ngay lekk safara lay doon sa biir bi day lakk rek bu defee yenn gàllankoor yi di la dal wala di sa njaboot yooyu war nañ koo moytu nit ki li ngay woote daf fekk nga gëm ko xam-xam jafewut boo gëstoo rek am ko dix ans boo ko jàngee rek mën nga am xam-xam gëstu si xam léegi yàgg na du bari maa ko yor toog waaye dafa jot moo tax ma génn waaw. sëñ bi bu demee ci wàllu actualité réew mi yëngu na nag. yëngu bu baax a baax ci coowal Ousmane Sonko ak Adji moo def deful. Hmm. ba jamono jii ñu toll nii mbiri audio moo xew. Hmm. ay enregistrement yoo xamante ni enregistré nañ ko ku ci mel ni Mamour Diallo. Hmm. wax ci nag bari na. bari ñu ngi wax mais am na ñu bari ñu noppi. Eh, yaakaar naa Serigne Mbaye si eh, Serigne Mbaye eh, Niass. waaw ñu gën ko Baye Mbaye Baye Mbaye Niass. Mm. ñu gën ko xam ci MC. Mm. dafa mel ni jot na ci audio yi nga xamante ne nii jot na ko dugal ba nit ñi déglu ko. Mm, waaw waaw jot naa ko déglu waaye Baye Mbaye ku baax la doomi nit ku baax la waliyu yàlla Cheikh Ibrahima Niass Baye Niass am na yoo xam ne moom dana ko jomba def wala mu jomb koo wax bu amutoon preuve. du ko du ko du ko wane moo def am defut kook seen diggante yàlla la ñoom man xam nga lu ma naqari ci actualité bi li xew nii lu ma ci naqari mooy fukki nit ak ñeent yi ci génnoon àdduna man loolu rek moo nekk sama naqar te wartoona mën a demee nii senegal lu ñaaw xaju fi am na yoo xam ne ñoom kilifa yi féetee ci kaw ñoo ko war di moytu ba muy yegg ci xale xale yi nekk ci suuf parce que am na yoo xale yoo xam ne xamuñ dara man fukki nit yooyu ak ñeent yi dee rek moom ma ci metti waaye moo def ak deful ko moom yëfu yàlla la ñoom suñ demee ñoom ñoo koy réglé ak yàlla waaye nag moom bëggoon naa yóbbante tuuti kàddu Mamour Diallo waaw na ñaanlu te mu def attention nag hmm? waaw loolu man maa ko wax parce que am na yu bëri dañ koy xam waaye doo mën a wax waaw na ñaanlu te def attention waaye nag am na soxna su baax nag. Hmm. Mhm. koo xam ne mu ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanlul yàlla moom bu ko xoolee ci biir soxnaam yooyu mu am sax dina ko xam waaw bu ko nëb bu ko soxna si nëbbul boppam soxna su baax la nag. waaw waaw moo yor kaaraange soxnaam la waaye xamu ko nag jaamukatu yàlla la te ñaankat la yu bëri moo ko ciy génnee yu bari moo ko ciy dimbale waaye na ñaan lu daal moom Mamour Diallo nañ ñaan lu baax a baax a ah du ma wax ne dana këpp si kawam sax ndax ñaanu luñ ko benn julit waaye na ñaanlu rek foofu laa moom te mu fonk fa non wallahi do am na yoo xam ne kenn mënu ko wax waaye na ñaanlu sax yàlla ñaan yàlla rek mën na lu ne na ñaanlu rek te soxnaam soos mu fex ko gëstu si soxnaam yi mu xam ko fonk ko bu baax nag parce que lu bari dimbali na ko ci te xamu ko lu mu ñaan yàlla yàlla dana ko def moom soxnaam soos noonu moo koy sauvé su lu bëri. ah mais audio yi ni ñu ko déggee moom euh, mbaalu euh, soxna si duñ mujjee tàqali ko. déedéet déedéet mën naa euh, am na lu jiitu woon lool lu jiitu woon lool mooy ba ñu xamante moom ak Mamou Diallo. Mmh. am na lu jiitu woon lool lu jiitu audio yi sëy buñ koy wax dafa am lu tax bu jafe-jafe ñëwee da ngay muñ mmh. bu bu bànneex ñëwee nga toog waaye bànneex ñëwee nga nga nga nga nga toog bu jafe-jafe ñëwee nga dem loolu taxu ñu naan sëy kooku du dem ki ma lay wax ni bu ko xoolee ci biir soxnaam yi nekkut kuy dem na ko fonk bu baax nag waaw te na ñaan lu na ñaan yàlla nag waaw na ñaan lu yàlla. waaw na ñaan yàlla rek yàlla yàlla baax na. sëñ di nuyu ñëpp rek di sant ñëpp Sénégal yëpp di leen gërëm yéen tamit yàlla yàlla def fi jàmm rek lay ñaan man Sénégal yàlla def fi jàmm sotti fi naataange ba ñëpp mën see euh, ku ñu soxla tamit. dañuy nekk fee cité Damel foofu la suñu loge bi nekk foofu la suñ kii bi nekk suñu suñu bërëb bi bu ñu soxla tamit boo ñu wooyee si numéro bi cent 78 368 67 95 ko boo ñu si wootee wooyee di ñu jot waaw bépp soxla waaw moo nekk WhatsApp bépp soxla boo am ndem gis nañu wax nga ñu ko te ñu mën ci dara incha allahu taala dina si jëflante ak yow.